réforme la ñu war a def par rapport ak suñu loi yi. non bi moo. je suis d'accord avec vous que c'est illo illogique. mais loolu la loi sénégalaise të tëral. moo tax ñu war ko xoolal. <laughs> voilà. parce que démocratie bu amul débat doonatul démocratie. Mm, mm. parce que bu fekkee démocratie wax la rek. on est on est dans une démocratie mm-hmm. en fait moi moi je je xaw ma attendez. jàpp nañ ko le janvier. un ministre. un ministre étymol étymologie moom ministre mooy un serviteur toi tu me sers tu es là pour me servir je te donne un budget pour me servir et je n'ai pas le droit de me poser des questions

ci dossier xale yi ci dossier mm. xale yi ci dossier xale yi nga xam ne dañ ko fekk ci ci pouponnière boobu mm. da nga ne ministre de la femme mm. ak protection enfant ak budget yi ñu leen di jox nañ ñu wax situation bi ñu ci def. voilà ça ça c'est une question loolu mooy question. loolu léegi da ko léegi yow wuyu ma est-ce que da nga ko diffamé diffamé woo ko parce que xoolal lijjanti woo vie vie am. Uh-huh. lijjanti woo vie personnelle am. la personne en tant que telle ne t'intéresse pas. c'est la fonction qu'on lui a donnée. budget bi ñu ko jox ak mission yi ñu ko jox. muy gérer une chose t'interpelle. Hmm. ci loo xamante ni nii jugewul ci ñun apparemment c'était Amadou Ba et autres ñoom ñoo génne woon euh, xawma ma rapport ou pas je mais information bi fa la fa la fa la jugee dugg dugg ci presse bi. xëy na bataille politique interne la woon. Hmm. Hmm. mais en même temps un ministre est censé nous servir. finalement dossier bi euh, ñu ngi wax wàllum. Euh, ban diffamation moo moo gën a dangereux aussi pour Ousmane Sonko si jamais. je ne pense pas cour suprême euh, xam ne moo nekk. Ah beneen dossier bi. Mm. moo gën gënoon dangereux ci Ousmane Sonko. parce que base ba accusation de viol loolu. mais bii c'est dans l'exercice de moom li mu doon un homme politique un opposant qui s'oppose. Mm-hmm. xam nga lu grand ñu xëy bi sa àdduna bi yëpp titre à la une. au Sénégal ci élection présidentielle yi euh, nu mu tudd un des principaux favoris la chef de l'opposition empêché de participer ndax lan dafa diffamer un ministre de la République ci coow loo xam ni moom créé yow ko ministre bi wax na ci l'ancien ministre de l'économie et des finance wax nañ ci. Mhm. rapport am na ak amul. débat moom am na waaw lii mooy scandale xolal bi gën a ci tâche histoire Sénégal comme démocratie mhm. xam nga li am baab. gis nga su fekkee ni nit ki da dem ci dara di nga fexe ba dem fa ci noo jekkoo état bi dossier Ousmane Sonko yi ñuy traîner procès bi yi ñuy teglante ni favorable leen ci élection yi ñu jëm loolu benn la beneen bi mooy boo jëlee situation bi nekk nii nga jël teg ko xool ni Ousmane Sonko ak ñi mu àndal Pastef et ses alliés janooweeg ak kaamu Macky Sall au final dangay xam ne Ousmane moom xam na à fin moom lan lay maanaam. lan lay am. gàtt lan lay mujjee. ok ñoo xamagul lan lay am. Mm-hmm. xamagul ndax fin bi day rafet ci ñoom wala day ñaaw. ñaaw na ba pare kay xanaa léegi nag nañ jéem a sauver li <laughs> parce que am na acte yoo xam ne après boo ko xësee ba posé. mënatoo dellu si ginnaaw. te ba tey donte li tuuru ci ndab li bëri na mais ba tey mun nañ sauver li. na rafet mhm. li bon nag mooy fexe ba ndab la moom lépp na saawaan. Mhm. amul benn sénégalais booy tàllal micro ci dossier Ousmane Sonko yi mu ne la lii du jaay doole même ñi leen doon défendre dañ mal placé pour défendre leen waaye yow doo arrêté. Hmm. trois ans yaa ngi ci benn objectif dama koy rendre inéligible ba léegi mënagoo ko am ci këyit. Hmm. waxuma la nag ci jaay doole. mais juridiquement l'homme est toujours éligible mais taxawal nga xoolaat nga jàngataat. <coughs> au-delà d'Ousmane Sonko. non mais mais mais mais foofu li li mu bëgg wax foofu mooy. Mm-hmm. taxaw jàngalaat du ci am parce que maa ngi koy wax tout récemment mooy lucidité la ñu perdre. xam nga xeex boo koy def te àndoo ak lucidité doo gañ a dara. da ngay mais loolu ñu ngi koy am depuis début euh, procès Adji Sarr bi mu mhm. juddoo nga gis ni ñu tëbee. Mhm. Euh, ne voilà un morceau boo xam te il faut que ñu daal ci a ko léegi noonu léegi ko manque de lucidité boobu moo leen topp ba léegi mhm. lu ñu dugg rek duñ ci dugg ak lucidité léegi nag loolu mooy waral yenn erreur yi après nga dem fii perdre fa combat demaat fa le perdre fa combat or bu fekkonte ne lucide nañ tuuti rek tey ji li dal CDC du leen dal ñëw na jël si jox nga ko këyit nee ngeen warul am bàyyi leen ko mu dem dina ñëwaat si attestation bu ñëwee nga ne ko indil bu ñëwee nga teg nag am sa chèque demal. Mhm. wax di jeex day taxaw bu di xataraat dem bu ñëw jël nga jox ko chèque am a demal ayib amoo droit amoo droit mhm. déposer. nga le pouvoir le le pouvoir dangereux. Mhm. le pouvoir est divin. moo tax loo yëre la boo xam ne nit bu ko sol mu yëmbax ci yow. parce que yëre yàlla la. loolu moo tax anglais yi naan. power is a conceit which reveal our limitation mooy maanaam taxaw di laaj pouvoir rek c'est une vanité mm-hmm. maanaam taxaw ne dama bëgg pouvoir mm-hmm. dafa mel ni vanité la boo xamante ne nit mm-hmm. dès saa nga wax ko ba nga jot pouvoir yi bés boobu la nit ñi commencé gis commencé gis say sikk parce que sol nga mbub mu la cëkk pouvoir loo xamante ne nii la nit bu ko jël te xamoo li ngay jël lan la sak matadi day feeñ. Mhm. loolooy pouvoir. Mhm. parce que dafa dafa doon loo xam ne lu lu lu doy waar la. gis nga boo xasee nekk en position de pouvoir dafa am loo xam ne yàlla rek moo ko am mais danga koy commencer am. mooy mhm. tu commences à être le maître du réel. c'est-à-dire que da ngay xëy suba teel ne dañuy dem defi lii. loolu mooy am. da ngay toog une semaine ne une semaine dañuy def conseil interministériel. tout le Sénégal est autour de ce que toi tu décides. Mm-hmm. da ngay xam sax lu ñëwagul parce que yow yaay planifier li war a xew. Mm-hmm. léegi pouvoir bi pouvoir dafa doy waar c'est-à-dire que ne tu tu commences à avoir benn maîtrise sur le réel. et et c'est comme si tu tu as la possibilité de dire moi bi lii mooy am li mooy am lii mooy am tu tu as tellement l'habitude de maîtriser le réel que yow da jàpp ne. tu fais la réalité alors que ne tu, tu ne fais que des actions à court terme. Mm-hmm. le vrai la vraie réalité yàlla mooy décider les dynamiques sociologiques les dynamiques économiques loolu beneen niveau la mais yow homme politique bu xamul luy pouvoir soo commencé ñam loolu avoir cette maîtrise sur le réel et sur le quotidien des gens tu commences à oublier que ne nit dong nga ba ca topp tout est facile mm tu as accès à l'argent tu a accès à des bolides à des voitures mm. et puis li gën a et puis tu as tellement facilité lépp dañ la koy jox que yow tu n'es plus dans le besoin. Mm-hmm. donc naka ngay mën a xamee ne keneen mi ngi ci dans le besoin. c'est vrai. et dernier point bi foofu la gën a grave mooy mm-hmm. da ngay euh, avec le pouvoir da ngay dem ba yow tu as le sentiment que que tey lu ñëw rek mën nga ko régler. ba noppi le pire aussi mooy sénégalais yi la wër. Mm. da ngay xëy suba teel tey damay war a ma gis damay war a gis Cheikh tey lan la Cheikh bëgg a dégg. Cheikh lan la am envie dégg Cheikh de mbaxana bi sa mbaxana bi rafet na. sëñ bi di naan si loolu la Cheikh bëgg a dégg bu ma ñëwee loolu laay wax. Cheikh léegi yow imaginez nit koo xam ne. Mhm. il a accès sur le réel.